ci boppam jumaay mi lu ko fal président lan la yàllaa ko fal mhm. dañoo war a gëm ne yàlla seen borom subhanahu wa taala moom moo fi nekk te mooy fal te mooy xañe te ñooy may mooy may mooy mooy mooy xañe mais askan bi neen moom ci président Ousmane Sonko moo ko fal déedéet xulillahumma mhm. malikal mulki tuutil mulka man tashaa wa tansihul mulka mi man tashaa wa tuhissu man tashaa wa tusillu man tashaa bi yadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir jërë ngeen jëf ginnaaw bi leen nuyoo ziyaar yi ñu te ñu daal Serigne Cheikh Niane war a waxtaan moom ci actualité réew mi euh, dinañ waxtaan waxtaan ci combat yi xam ne taxaw na Balla Gaye 2 am na combat waaye nag tey ki gën a tax ñuy waxtaan euh, ci làmb ji mi ngi nekk Modou Lo digganteem ak Siteu mu nekk combat boo xam te ne combat bu doy waar la lépp nañ ci waxtaan roi it aussi ba tey mi ngi ci loxoy Modou Lo gis na ne Modou Lo depuis Yékini ba tey moom rek moo ci tegale ñaari victoire ci ci roi bi lépp nañ ci waxtaan euh, Serigne Cheikh Niane ñu lay ziyaar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ne ñu jële ziar di ñaan suñu borom def jàmm am Sénégal yàlla na Sénégal sax si jàmm bisimilah sang bi am na solo fi ñuy commencé nag bëgg nañu ko waxtaane ci mbiru Modou Lo gis na ne am na combat ak Siteu waa Diamaguène waa banlieue bi yëpp ñu ngi taxaw ci ginnaaw Siteu ñu bëri jàpp ne nag Siteu dafay ñëw rek Modou Lo daan ko Modou Lo am na combat ak Siteu ndëkk gisee combat boobu alhamdulilah dinaa wax kan la waxaanam doole mhm. ci kattu ni yàlla lépp lu la ci wax du den insha allahu taala waaye nag bul fàtte ne yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci boppam mm-hmm. waaye nag yàlla suñu borom ci boppam mm-hmm. bul fàtte ne moom moo xool bis bu ci nekk lu mu ci programme mm-hmm. bàyyi di leen xool nit ki dooleem bu leen di xool nit ki pouvoir mu am bàyyi di xool nit ki darajaam yàlla ci boppam jumaay mi lu ko fal président lan la yàllaa ko fal dañoo war a gëm ne yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom moo fi nekk te fal te mooy xañe te may mooy may mooy mooy mooy xañe mais askan bi nee nan moom ci président Ousmane Sonko moo ko fal déedéet qul illahumma malikal mulki tuutil mulka man tashaa wa tansihul mulka mimman tashaa wa tuhissu man tashaa wa tusillu man tashaa bi yadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir bu fàtte ne aay boobu yàlla suñu borom moo ko def spécial ci wàllum nguur yaa ngi dégg wax bi moo tax lépp lu am rek dañoo war a jàpp ne loolu yàlla suñu borom subhanahu wa am na solo euh, bu ñu jógee ci loolu dana waa ñu waxtaan tuuti tey bëgg naa ñu waxtaan ci mbirum saraax parce que dañuy gis ñu bëree bëri dañuy jàmbat ñàkk liggéey nga gis ñoo xam dañuy jàmbat ay problème mais balaa ma ñëw ci mbirum sarax damaa bëgg ñu waxtaan tuuti ci mbirum seet seetu rawxaan moom mooy lan parce que dañ ñu bëgg dañ naan dañuy seeti ci layu ñu di seeti ci kurus yow nga ñëw nga ne rawxaan ngay seeti waaw xam nga daf ci am nit ñoo xam ne dañoo bari ñu leen di defal lu ñuy wax seetu rawxaan mm-hmm. am ci ay nit ñoo xam ne dañoo bari ñu leen di defal lu ñuy wax listixaar rawxaaniya mm-hmm. waaye ku ci nekk lan la lay doomu aadama yi di defal loolu mooy importance bi mm-hmm. maanaam nit ki moom lan la lay defal parce que dafa am lu ñuy wax seetu rawxaan am nit ki bu fa loxoom bi yónnee ma billaahi ma wax ko léppi àddunaam barki alquran macha allah yaa ngi dégg wax bi mhm. léegi doomu aadama ci boppam moom lan moo ko yàqal d' abord loolu moo loolu moo loolu moo sabab seetu rawxaan bi mhm. tey am na ñuy wax listixaar rawxaaniya loolu yi dafa am leneen loo xam ne moom moo ko sabab damay laaj seetu rawxaan ba xam ku tukki da ko koy defal wala ku nekk Sénégal nga koy defal dama koy defal ku nga xam ne parce que boo gisee ma koy seet defal seetu ko istixaara ruhaaniya moom damay soxla at bi mu maanaam at bi nga xam ne ci lu tukkee déplacé wu at boobu dama koy soxla mhm. pour mën koo defal istixaara ruhaaniya at boobu laay soxla parce que damay soxla at bi nga xam ne ci la tukkee pour ko defal istixaara ruhaan am na sax ah. yaa ngi dégg wax bi léegi bi gën na bi maanaam bu loolu passé mhm. nit bu li tax ma koy defal istixaara ruhaan moom bi mu jugee ci dëkk bi dem ci dëkk mhm. léegi est ce que rawxaanam ak rawxaan dëkk boobu méngoo nañ loolu itam ba tey dafay sabab saxaar rawaxaan gi parce que nit ki moom mën naa ubbeeku yaa ngi dégg maanaam moom moom ci boppam yàlla dimbali ko mu bokk ci anam bu sell rawaxaanam lépp baax mbiram yëpp baax waaye rawaxaan rek moom moo fermé ay mbiram partout ba dara mu ñu fonctionné est ce que yaa ngi dégg wax bi léegi dafa am benn affaire boo xam ne foofu il fi nekk nga mën a nga mën koo réparé réparé yi may ko réparé ci dimension sarax la ci ay façon sarax yoo xam ne dafay contrer baaxul yaa ngi dégg. yaa ngi leer lu am solo mais boo déggee askan contour la nit ki am na ci façon sarax yoo xam ne boo ko defee mbiram dafay gën di dell gannaaw mhm. am ci façon sarax yoo xam ne boo ko defee nit ki dafay gën di avancé mhm. léegi nit ki man ci ban façon saxaar laa ko war a defal loolu moo ci doon xam ban façon listixaar wala nit ki moom lan moo ko yàqal nit ki cat moo ko topp mhm. wala rab moo ko topp wala gàllankoor bu nekk ci moom la Mhm. wala dafa am kum tooñ mu bañ koo baal wala moom ci boppam ay maamam maamam moom maamam moom dafa am ay rab yu nekkoon ci ñoom ñoo ko topp rab yu cosaan mhm. wala ñoo xam dañoo am ay façon xam nit ki lan mooy doxal mbiram ak mbiram fan la war a doxee mhm. léegi nag nga foto solo loxo bii nga yónnee ba billaahi moo wax la sa lépp àddina am na solo bi loolu jàllee ñu bëri di jàmbat parce que gis na ni actuellement Sénégal jafe-jafe yi bëri na ñu bëri naan sarax dafa baax ci doomu aadama yan façon sarax moo gën a baax ci doomu ak ndax léegi nit ki léegi nit ki ci boppam moo am sarax mu war a génne mm-hmm. léegi maanaam ban sarax moo am mm-hmm. ki am na foo xam ne fa mm-hmm. rawxaanam carrément rawxaanam moom moom ci boppam moom nit ki rawxaanam dafay dellu gannaaw pour mu wax ko mu leer léegi foofu dafa am ab sarax boo xam ne moom dafa ko wër a génne léegi bu génnee sarax boobu nag sarax boobu moo tax ay mbiram dafay dox te du taxaw abadan waaye lépp lu ci am rek ci kàttanu yàlla dañuy duggaat ba tey ci biir listixaar rawaxaane ya incha allah taala am na solo bi loolu jàllee dañuy continuer ba tey waaye nag loolu ma listixaar rawaxaan ba tey it ñëwaguma ci seetu rawaxaan bi léegi seetu rawaxaan mooy ki nga xam dafa nekk fii dëkka ak man kooku day foto ñaari loxoom yi mu yónnee ma billaahi wallahi taalaahi man képp ku ma defal listixaar rawaxaan musuma laa wax ku la liggéey yow ñu liggéey la te waxuma la ki la liggéey kan mm-hmm. ñu yàq say mbir yàqal waxuma la nga déclaré ma te yàlla am na solo euh, dañuy continuer ba tey Serigne Cheikh ñaan ñu bari gis nañ ne Sénégal euh, actuellement jafe-jafe bari na parfois ne ci néegu sëy mais dafay mel ni ay xal ndax méttiwaay xuloo guddi xuloo bëccëg coow li bëri lool loolu lan moo koy waral. loolu dafay fekk ku jigéen ki mën naa am rab. Mhm. loolu benn la ci. wala ñu takk leen ci bis boo ñu takk sëy bi bis boo xam ne bu kuñ ko takkal jabar. Mhm. da ngeen am gàllankoor. Mm-hmm. loolu itam ba tey ñaar la tam ba tey tamit maanaam loolu li koy a dafa bari xam nga sëy seen ñaari rab yi mën naa ànd mm-hmm. seen ñaari àndandoo yi mën naa bañ a ànd mm-hmm. seen ñaari mën naa ànd ñu bari ñu yaakaar ne yi ba àndee seen lépp ànd na ñu dem ci sëriñ mu ngi leen seen ñaari àndandoo yi ànd na seen ñaari àndandoo yi ànd taxul seen lépp ànd seen yi mën naa ànd ba pare seen rab yi di fiirante di xuloo guddeeg bëccëg loolu ay rab ñoo koy def nga xam ne seen ñaari àndandoo yi ñu dul ànd léegi seen ñaari àngandoo yi mën naa ànd yaa maanaam seen ñaari rab yi mën naa ànd ba pare seen ñaari àngandoo yi du ànd mm-hmm. ba tey mën ngeen dëppoo ci wërsëg waaye doo leen dëppoo ci àndandoo doo leen dëppoo ci rab doo leen dëppoo ci roxaan waaye dëppoo ngeen ci wërsëg mooy waral yéen ñaar am ngeen lu ngeen lekk kër gi manqué wul dara waaye xuloo du fi jóg loolu ba tey boo boo ci doon ñaan ci wàllum nopp da ngay gis koo xam ne kooku day dee saa ci mu naan ah kii de c'est normal xuloo bi daa bari damaa bëgg nga def ni ñuy jubóole mhm. ba tey taxul ngeen jubóole foofu nopp amu fa de foofu da ngay génne saraxu ndaw si saraxu rabam ngay génne neexal rabam sëy ba mën a jaar yoon mën a neex wala nga laaj leen ban jour lañ teg woon sëy ba ñu la waxee sëy boobu nga génne waat nombre boobu ci gura gu weex ak gura gu xonq génne waat li nga xam ne mooy tàngal am lu ci liggéey bu fekkoon dañoo jëndoon beñe nga laaj leen est ce que dafa ngeen a defaroon beñe nga am lu ci liggéey ak lépp loo xam ne génne woon nañ ko sëy bi jaar yoon. macha allah. mais ba tey maanaam li ñu takki woon sëy ba loolu la nga jël da koy génneewaat parce que sarax la boo xam ne dafay contraire affaire bi mhm. ba léegi loolu bëri ñu ko xam léegi naan ah damaa am rab léegi bàyyil ma dem faju ji rab déedéet léegi bis bi ñu takki woon ba man dama koy soxla di ñaan ñuy sëy bis bi ngeen takki woon sëy dama koy soxla yaa ngi dégg mhm. soxla seen tur soxla seen tur yaay soxla seen lépp incha allah pour mën laa defal loolu. am na solo parfois ngay faral di wax naan noob di ñëpp la ñuy noob. déedéet xam nga noob dafa bari façon. ban ak ban la. xam nga sëriñ si jëkk diggante jëkkër rek jabar noob lañ koy wooyee. Mhm. te loolu noob amu fa. lan ma fa am. dëj def ci kër gi loo xam ne soxna si du mën a génn. wala nga jox ko loo xam ne bu ko lekkee du mën a génn kër gi du man a buuse mètre. Mhm. lépp loo ko digal ma def ko lépp loo ko teree mu bàyyi ko loolu la ñuy wax dëj. Mhm. yaa ngi dégg bu baax. kon loolu ba tey bukkut ak nopp nopp ki nga gis war koo takk kooku la ñuy nopp kon léegi nopp ak not bokkul ba tey nopp ak not ak tàggat doomu aadama mm-hmm. yooyu benn bokku ci ak sa moroom nopp not tàggat bëgg ci tubaab bi alal pour bëgg ma jox la ko kooku lañ koy tàggat mm-hmm. léegi ñaar ñaat ñi ñu taxoon naan lu ma ñaanu ci sama tubaab bi damaa ñaanlu ba sonn def naa lu ne ci sama bi pour bëgg ma jox ma alal dong waaye ba tey mënumaa am dara mhm. te fekk ne dañ ko noob nag te lu ci gën a garaw mooy sëriñ si nga xam dañuy ñaan ba pare xamuñu luy aajo am ñaan kat dangaa war a xam lan mooy aajo boo xamee aajo pour nga saafara aajo dafay yomb général mhm. aajo bu dugg si nopp war ngaa xam aajo ban ban aajo la man ak sama jëkkër dañoo am problème loolu leex naa rek la sa tur sa turu yaay ban ak ngeen takki woon sëy bi wala ban weer ngeen takki woon sëy bi loolu kay alhamdulilah bu dee ñaan kan nga alhamdulilah waaye da ngeen am problème lii dee ko def day tax da gën a bëgg mën na laa bëgg lool yow tamit nga koo bëgg lool waaye rab bi mooy problème bi maanaam rab bi fiire seen biir foofu la gàllankoor bi nekk am na solo euh, bi loolu jàllee mbirum bayre ak kaaraange ñu bëri neen bayre bu ànd ak kaaraange amul njëriñ nga kaaraange baax na waaye bayre itam baax na baaxul. bayre baax na baaxul. Mhm. lu tax ndax bayre dafay sonal borom. Mhm. waaye ubbeeku moo gën. ubbeeku bokkul nga xam ne kenn du la xam waaye lépp loo dugg dafay barkeel lépp loo yëngu dafay barkeel lépp loo yóotu jot ca képp ku la gis yéene la alalam képp koo gis mu neex ko loolu mooy ubbeeku dëgg dëgg dëgg. Mhm. ñaata nit ñoo nekk assemblée nationale mën nañu bind seen tur te ay directeur lañ. ah ñaata nit ñoo fa yor ay gox te ay directeur lañ te am na ñoo xam jàng nañ ba yee seen këyit mën nañoo am dara mën nañ koo am parce que loolu ak tëju la tëju ak ubbeeku bokkut nit mën ngaa ubbeeku pare doo xam dara doon ministre am na ñoo jàng ba yaa ngi dégg wax bi mhm. mënuñoo am luñ lekk fu ñu dem kenn dina warmaal te buñ la waxee dañ jàng loolu ak tëju la ubbeeku nag mooy doo xam dara doo jàng dara ku la gis sopp la directeur sax mën nga koo doon mais loolu sax ubbeeku rek moo la ko may. macha allah sax doo ko mën a bind lépp dañ la koy defal. loolu ubbeeku la. ubbeeku la. am na solo parfois nga gis koo xam dafay jàmbat ay feebar yu nekk ci moom. lu mel ni feebar joxum siti bala ba ci ngóora feebar man am ay façon feebar yu ma saafara muy feebar rab man rab dama koy faj. Mhm. dama leen koy wax rab dama koy faj. Mhm. rab bi nga xam dafa tax nit kii ay tànkam taxaw mën a tura dox wala mu teel laa wax wala nga jékki-jékki muy teel a am jëkkër sa fit di tëf tëfi à chaque fois rab boobu man dama koy dindi boo xoolee ma si bi yëpp loolu lañu am rab bu leen sonal rabu cosaan dafa am ban façon rab moo am rabu cosaan boo xam ne ci say maam la jugee booba rab la rab bi nga xam ne ci yow la dafay am rab bi nga xam ne sa jabar moo ko moo ko indaale dafay am ak rab bu dëkk ak yow ci kër gi dafa am léegi ban façon rab moo jàpp nit ki d'abord di ko yàqal mhm. moo tax foog nga xam li sa xaaraw xaan dëgg dëgg dëgg dëgg pour mën a génne mbiri doomu aadama bi mhm. foog nga xam li sa xaaraw xaan dëgg pour mën a génne sa raxo doomu bi loolu boo ko xamul nit ki aajoom lan lay saafaroo da ngay wër rek ah rab la jàpp digg naa ñu ne ku bind suuru nangam boole ko sàngam day faj rab léegi ban rab la moom ban moo ko jàpp ci rab yi parce que rab yi dafa bari ay façon léegi ca la jàpp xaar mu bind la dina ko peut-être mën naa dañ parce que dafay am yaakaar ba tey léegi moom ba tey ban cat moo ko jàpp est-ce que catal la wala est-ce que catal la wala est-ce que catal oto la otoom lañ catu wala est-ce que yéereem lañ catu yéere ba mu sol ñu ne ah sa yéere bi rafet na cat boobu des ci sa yaram ba léegi léegi ban cat moo ko jàpp ci cat yooyu léegi la moo tax nga bëgg da ngaa yor sa benn aaya sa benn papier képp ku ñëw loolu nga ko jox mooy saafara aajo loolu problème am na. am na solo euh, ba tey dañuy continuer ak yow fi ñu koy tëjee mooy maa ma doon laaj sànq mbirum ngóora kum sonal lan nga si liggéey. ngóora dafa am lu koy sabab. Mm-hmm. mën ngaa takk jigéen joo xam ne dafa am faru rab. Mm-hmm. rabam mooy téye sa ngóora. waaye gis nga góor tant que ngëbul trois fois du góor bu fekkee da ngaa ngëb trois fois jàppal ne góor nga waaye da ngaa am problème force. Mhm. xam nga am problème force ak góor ça n'a rien à voir parce que bokkul dafa am différence. Mhm. man nga am problème force mais en même temps da ngay da ngay am ngóora man nga am problème ngóora. Mhm. nit ki ci boppam ngóoraam kañ la ko lan la koy def waaye gis nga lu am sëriñ bi ma tënk la ci wax ci gàttal ñu tënk émission bi. képp koo xam ne da ngaa yor aajo ak aajo bu mu mën di doon ci àddina da ngay foto sa loxo bi nga yónnee ma bu fekkee da tukki déplacé wu sa sa turu yaay sa ñaari foto loxo yii ngay foto yónnee ma yaa ngi dégg su ma xoolee ba nga xam ne lënt na lënt na ma dafa am lu ma ci bu ma lëntee mën na la da nga ma ko bi ñaar su ma lëntul mën na la baax na macha sa tur soxla sama temps laa sa tur laa lay laaj sa turu yaay at bi nga tukkee weeroon fa ñëw ak turu dëkk ba nga nekk ak dëkk bi nga nekk ban quartier nga nekk loolu lépp laay boole bu guddee dama koy teg nii def ko listixaar billaahi wallaahi taalaahi ak koor gi ma nekk nii sa lépp àddina lañ may woon macha allah mm-hmm. lan ngay tàggatoo di sant yàlla di sant yàlla di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne damay préféré wala foofu ci benn sarax mm-hmm. sarax nit ñi nan la mën a génnee sarax nit ñi bu fàtte ne nit ki maanaam aajoom bi muy sàkku moom xam nga parfois nga ne nit ne la génneel saraxu nangam mm-hmm. nit ki lii mooy sa sarax nit du am sarax ah nit rawxaanam dina am sarax mais dina ko defar rawxaanam pour rawxaanam di ko dimbali ba yi kan yi kan nar a yi kan nar yi nga xam ne moo moo nar a yàq ak dundam rawxaan bi écarté loolu yaa ngi may dégg bu baax mhm. waaye nit ki bu amee aajo mu ne damaa bëgg tukki léegi tukki gi bëgg tukki nag moo am aajo mhm. damaa bëgg am alal léegi alal jëm bëgg nag aajo la mhm. léegi aajo boobu dafa am sarax waaye benn nga jox ko benn sarax nga bëgg hmm. naa ba may dee xalaa kulli xaal aajo bu mën di am sarax boobu lay génne loolu ku la ko wax du dëgg. te ñëpp nee nañ nit yow gis lii mooy saraxam nit saraxu rawaxaan lay am rawaxaan bu koy dimbale mu def saraxam à chaque fois hmm. mais sarax boobu da nga koy continuer di ko def di ko def ba ba ngay dee aajo boo am mu faju loolu amul. macha allah benn sarax bi faj benn aajo aajo benn sarax boo xam ne day faj junni aajo amul sëñ bi aajo bu ci nekk lan mooy saraxam moo am. macha allah lan nga tàggatoo. yàlla ñëpp am jàmm. asalaamaaleykum wa rahmatullah